dal leen ak jàmm mbokku internet yi kuy waaxu di gersuloo gaaw a yegg fa nga jëm ki ñu gersuloo jamono jii ngir mu xool démbam mooy Mame Makhtar Gueye moom mi ñi teg ci deram ay tuuma jëlee ko ci jaar-jaaram mel na ni jamono ji géejub Mame Makhtar Gueye dafa sàmbaraax moom vice président bu ONG Jamra mel na ni jamono jii ni kat démbam mu ngi koy dab li ko wane di weer guñ ko weer ak waxtaane guñ koy waxtaane fépp ci réseaux sociaux yi ak sax yenn yéenekaay yi di yëkkati ci moom ay kàddu yu mën di yëkkati ci moom ay kàddu yu ko mën a jural gàkk gàkk ci deram yooyu yooyu tuuma nekk nag dëgg dëgg lu jaaxal sénégalais yi ndax kii la di Mame Mactar Gueye ku siiw la lool ci dëkk bi te li ñu ko xamee te di ko kañee mooy dëggu ak njàmbaar gu mu wane ci xeex bépp waxin ak jëfin buy salfaañee jikko yu baax yi ñu namm ci réew mi mu mel ni bu ñu sukkandikoo ci yooyu le kàddu tuuma ni Mame Mactar Gueye moom yiiwul dëgg-dëgg comme ni ko ñi ñi yaakaaree ci fàttali ci lu yàggul dara ki ko njëkk a tuumaal mooy rangu mi nga xamante ne yëkkati woon na fi ay kàddu di xam la ne Mame Mactar Gueye daf daan ñëw këram di lekk ci ay ceebu jënam di naan ci ay ay góor jigéen. may wax nga taxaw naa nan la tuddati yaa gën a xam sama tur naan nga fi njarum soow naan fi attaaya ni ngeen def Waly Seck doole ma ko def fii ngeen ne da ngeen di xeex waal sekk ndax t bu mu sol góor jigéen ba ngeen koy xeex fan nga daan nekk di ràcc yow ñëw ñaata yoon nga ñëw sama kër fekk fi góor jigéen te mu soo wax bu dee cadre góor jigéen ñaata yoon nga ñëw sama kër fekk fi góor jigéen te mu soo wax. moo tax bi ma gisee coowal waali bi <laughs> gis seen bi nu mu demee dama ree yaayee sax yaayee nag yaayee yaayee doxalee nii waaye boo xamoon nga noppi may wax ñu ne xale bi dafa def lii dafa def lee yéen tele ngeen soxla pip paa yi dund seen jamono ba dee dese leen ñu ni ñoom dañuy defaraat defaraatoo leen da ngeen di yàq li leen fi teg xam nañ ko seen affaire de jàmb bi ñoo leen gën a xam fuuf ak foog nu mu demee ay naar ngeen di liggéeyal ay naar ngeen di liggéeyal yu bëgg a wax waaw diine gi nii diine gi nii sama dëkk ni ngeen def waali sekk ni ngeen def didi la tudd je ne sais pas didi la tudd noonu ngeen ma bëgg a def après loo leen di def dajale commentaire yeeg li nit ñi wax ak yépp jubali dëkk naan yi yóbbu ne suñu dëkk kat lu bon lii lañ fa naroon def amoon na mbiru góor jigéen amoon na mbiru benn xale bu buggoon a def cagatu amoon na benn xale bu def photo wu gars yi yëkkati xaalis jox leen ngeen dem seen yoon. et alors dund sa jamono ba mu jeex ne xale yi du ñu bàyyi di dund seen jamono et alors mais ban dëkk la nekk ban dëkk la nekk may wax tey nga wax ay moo yu bari ne man maa la ko wax te man man maa taxaw wax loolu est-ce que mun ngeen génnee li ma wax na ñépp génneewaat àdduna. est ngeen génnee paa bi li mu wax tey jii ne man maa ko wax man ragaluma loolu fi li ngeen may woo man ragaluma loolu dinaa profitoo nag ci biir vidéo bii am lu ma wax parce que man nit kase laa am ah. man raxuma dara paa boobu ngeen di wax du mun a wax si man lu ñaaw du mun a wax si man lu rafet lu ñaaw rek la mun a wax ci man ndax ba nga ñëwee di toog ay waxi ñàkk fayda yëkkati la dama laa teel a man xamoon nag si ki nga duggoon bu dee loolu nag nga jàpp een jàpp ko sa biir xol bii ba mu tax la yow nga ni yow dangaa demoon jumaa jii jiite ji ñaan ci yàlla nga wax yàlla nii laa bëgg sama bëgg dëkk mel yow naka ngeen di demee jumaa ay paa nañ waxante dëgg waxtaan sax dëgg ca ngeen dem jumaa ne dangeen ngeen di julli jóge jumaa aha loo leen ci teg sa su si taatu miir yi sa su si taatu palanteer yi pour wax ci benn xale bu def taatu neen wala benn xale bu def sili bu neen mais bën dëkk la nekk est-ce que yéen a ngi xalaat ñoom nee ñi dañuy xeex li may def parce que pour l'islam jógee si julli jumaa ñaan suñu borom pare ñëw taxaw ne ñoom dañuy xeex pour benn xale bu sol silib te xale boobu ñu naan sol yëpp la sol ak yére la sol kenn ci ñoom yëkkatiwul téléphone am woo ko ne ko sama doom lii ngay def nga déglu ba xam dina ko bàyyi wala du ko bàyyi waaye bëgg siiw bëgg xeex naa lii sama dëkk xeexoo leen dara da ngeen di yokk bon teg yi duus ngeen xeexul man bu dee nañ ma war a jàpp nañ ma jàpp man ràngu ragaluma loolu ragaluma loolu may profité nag si biir lii ndax man xale kase la nit kase la màgget gi ñoo fi nekk dund seen jamono ba mu jeex bëgg a dund sama bos te man duma ko nangu te lu mu laaj ma joxe ko bu laajee sama baqet ma joxe ko loolu ragaluma ko nit kase la am naa droit am bëgg tëgg sama soirée tëgg ko li ma ci sol bu nekkul noonu aha d'accord naa nit kay day juum mais dañuy waxtaan ak nit ku juum pas bëgg média bëgg télé feeñ nga bëgg feeñ boo ñëwee sama kër doo réglé feeñ nga bëgg feeñ comme heure dëgg dafa jot nag man nag waxoon naa la ko un fii ci ay kaf ne woon naa la man ku ma wokk ma xuri la ci ay kaf la ñu nekkoon génnuma benn paa bu taxee nag nga taxaw ne dangay wax lu la neex dajale ñi nga xamante ne ñoo boot sa ginnaaw na nga defoon Wally Seck def ko Guigui xaw ma Guigui la tudd xaw ma des Major man dooma ko def foo leen ma woo wuy si leen may profité di baalu nag dinaa baalu de baalu ma benn yoon waa jàmm parce que yéen nekkoo leen pour defar réew bi da ngeen fi def pour yàq réew mi dinaa baalu nag kilifa diine yi kilifa diine yi nga xamante ni ñooñu ñoo tax ñu naan kilifa diine kilifa diine yi nga xamante ni ay nitu démb lañ yàllaa leen tax yàlla donga leen ñor kilifa diine yi nga xamante ni lu dul yàlla ñoru leen maa ngi leen di baalu àq bu baax di leen wax ne que xale kase nit de doomu aadama boo gis ci kaw àdduna day juum tëgg naa sama soirée li ma si sol baaxul loolu mun naa koo d'accord loolu mun naa ko d'accord mais taxaw fii ay conférence de presse ay dañuy dem plainte ay procureur def nii ñooñu yàlla da leen fee teg pour ku deful loo warut def ñu tëj la. kaso bee man ragaluma faa dem ndax ndax ña fa nekk am na nit ku baax am na nit ku bon am na wàlliw wàlliw yaa nga sa kaso ba kon lan moo tax man ma war a ragal ay dem kaso pour lan yéen yéenay jàmm rek yow nga xam ni mais mais mais man Sénégal ba Sénégal la nekk may wax ñu taxaw taxawaayu iblis seytaane topp seen ginnaaw kii di wax kii di ree may wax mu naan am na lu mu wax cam yaa yooyu ne cam bu dee damaa salte xale bu salte bii nee na la moom nobu la te bul ko ko waxat xam nga bu baax li may wax sama kër xam nga fi xam nga bu baax li may wax nit da yàgg naa dajeeg yow sama kër dama am samay seede xam aw ma sax jotu waxantu may profité di baalu képp koo xamante ni kilifa diine la li ma def naqari leen muy mag muy kilifa diine mag ba ci ndaw maa ngi leen di baalu paawaa jam la foo leen ma woo ma wuy si leen ragaluma loolu maa ngi jéggalu bu baax a baax bu fekkee naka li ma sol moo bon wala moom ngeen bëggul dootoo leen ko gisati bu fekkee loolu la man nag xale laa bu toll sama liggéey di ko def yii nii yépp ay foli la woon comme noonu ngeen ko gisee nekk du lu baax wax ngeen lu nekk nangul naa leen ko parce que man taxawaayu ma taxawaayu yàlla waa jàmm dañoo taxaw taxawaayu yàlla ñooñu ñoo bëgg a jël place yàlla te yàlla kenn la suñu borom kenn la ñooñu ñoo bëgg a jël place man ràng sañu ma ko xalaatuma ko te duma ko def maanaam taxaw bëgg a jël doomu aada ki juge ko wax ci moom loo xamante ni yéen suñu borom mu ngi leen dencal sutura su bëri soo xamante ni nii kenn ku nekk ci yéen bu ko tuddoon di nga tal leneen lu dul kaawu ràng waaye nag yàlla baax na am ràngu indi ràngu fii mun na mun naa leen nax yéen ñépp mais mënumaa nax yàlla yéen maa leen gën a gëm yàlla fuuf ak fof ba may gëm yàlla loolu du tey foofu ak foofu maa leen ko gën a yëg xam kuy yàlla damaa foogoon ni suñu borom kay dañu boo mënee na nga maandu man lii laa foogoon waaye taxaw ay paa julli àjjuma war a ñaanal yéen ñaanal ma sax leen waroon ne yàlla suñu borom suñu sët bii wala suñu doom ji lii ko dugal ci lii yàlla na ko soppi mais axa noonu faaw ñu taxaw ñun dañoo bëgg ndaje man duma leen woo sama cent franc doo leen ko lekk cent franc wu ñi ngeen di lekk man duma ci bokk sama un franc leen ko lekk gi waaye seeg nii la fi defoon aha waaw gi gi nii la fi defoon aha waaw man yóbbu leen ma fu leen neex teg ci nag wax ji ngeen wax sosal ma ko ma ni dinaa ko tourné ci yéen bu dee guerre la na saf mondial fu mu war a yam na fa yam ragaluma loolu na ma gars yi di bàyyi di bañ wax Sénégal lii kañ la fi jeex lii kañ la fiy jeex Sénégal kañ la fiy jeex xam nga ni nit def lu bon nga ni kilifa nga nga woo ko ci ruq wax waaye aha bëgg si moo leen dal bëgg siiw ak bëgg dërëm ñun xam nañ lépp dañ leen di fay jàmm na waxal yàlla wala defal yàlla taxul leen a jug gëñ na leen a jug awa comme ni ma ko waxee ni ko pël bi di waxee gëñ na leen a tax a jug depuis awa waxuma leen avant de mais depuis awa ñu di non ñun dañ fi nekk pour waaw mineur yi kërëb kërëb wee Sénégal da ngeen a foo foo gi bu ma koy wax ñu mel ni yéen a tax parce que mënuma gëm paa bu ma nekk di jéem a doxaan di ñëw sama kër ma koy toggal suppu kànje di ko toggal tey mu taxaw fii woo journaliste si taxaw may wax mu naan xaw ma koo kooku di wax ay moo yoo xam ne musuma la ko wax taxaw fi di xeex ay góor jigéen alors que gis nga góor jigéen sama kër te musoo see wax léegi kaa bi dafa war a leer na leer kenn par kenn na leer dawuma ci dara dawuma ci dara yoon ñun ñëpp la fi nekkal nañuy yoon àtte te nam ñu war a àttewee man loolu ragaluma ko bu dee dama war a tëddi mooy li ma leen wax fee waat li wangu fa ki fi gën ki ngeen topp yéen ne moo fi gën sax jaar na fa et alors et alors fii lan moo fi ñor bañ koy macc lan moo fi ñor bàyyi leen diine gi ngeen di mbubboo bàyyi leen diine gi ngeen di mbubboo waaye ba tey yemul foofu moom Rango dabali waat na mbir mi daal di wax ne li Limaam Makhtar Gueye wax ni am na ay tur yu ñu jot a yor ci ñi nga xamante ne teewoo woon nañu soirée privée boobule moom Rango mi wax ne looyu kaddu dara du ci dëgg ànd ak loolu mu di ko joxoñ ay kaddu ciiña la di wax ne bu dee dëgg la ne li mu wax dëgg la dëgg-dëgg na ko moom sax dëgg jàpp na ne loolu mënta nekk te sax nag moom Maam Makhtar bu mu wax mukk dafa am ay kilifa yu ko ñaan ba tax mënta publier boobule liste ndax moom Rango moom dëgg-dëgg rek moom moo mën a def boobu la ñaan te ñaanul dara muy ñaan donc Mame maxtar Gueye na publier boobu list lii la nekk ay kaddu tiiñal pour wax rek ne Mame Mactar Gueye li mu wax dafa amul. l'hôpital euh, bi jógee Mali di liggéey itam simultanément sur le trafic euh, du brown bi jógee euh, gana mu am ay informateur parce que wax naa la au début ne la on avait un journal on devait boucler notre numéro sur le circuit les modes de de tra de trafic de et cetera mu am informateur bu ko war a jox des informations complémentaires ndeke piège la ne woon naa ko bul dem mu dem egg tefesu Yara ba place bi ko waa ji wax jox ko ne boo ñëwee ba ci garab gi boo passé par lampi et cetera mu topp indication yi taxaw di ko xaar jékki-jékki rek gi cinq yu ne tël am fu ñu génne armée de gourdins et d'armes blanches ay jaas yi lati daal dafa ne ni yem ci rek comme que il était jeune il a dû sa vie à sa rapidité à la Usain Usain naka la tudd waa ji dawkat bi Usain Bolt looloo ko sauvé keroog kooku xam nga loolu moo gën a garaaw ay kii donc guet-apens sax traversé nañ ko moo tax ma ne mission Jamra c'est une mission éternelle privé boobu bañ nee soirée privé la lépp privé sama gars yi Sénégal nee naa leen ubbi leen seen xel yi bàyyi nit ñi ngeen koy jox ñu koy foowee mais rango bu waxee dañ naan rango wax mais tey dama bëgg ngeen déglu ma ak xel te bañ ma déglu ak xol ah parce que xel doo ngay doomu aadama te xel mooy nit ki c'est vrai samay wee manqué na ma gars yi fi may njëkkee tey mooy ci Mame Matar Mame Matar Mame Matar ma Matar <laughs> sama gars yi ma Matar nee Mame moo wax nee na am na onze personnes yu mu xam ci ñu demoon soirée Rangou gars yi wax jooju amul de wax ju foo ngi noonu waaye gars yi ubbi leen yi te partage vidéo yi Mame Matar nee na am na onze personnes ci ñu demoon ci soirée privée ràngu nee na jël na noté na li nga xamante ni mooy xaw ma lan serveur ba ba tuddaale ci ñi nga xamante ni mooy ba tuddaale ci waa feewaay euh, Mm, waa Sonatel. merci beaucoup ba tuddaale ci ñi nga xamante ni mooy waa Sonatel ma ne ko maam Matar da nga juum juum nga juum bu garaaw maam Matar tey yow laay waxal maam Matar da nga juum wax ji nga wax c'est faux wax ju amul la pour commencer. mamata nee na wii dañ cee yéex a jóg wax na ko fu ne wax na ko si tele yi wax ko ci rajo yi gars yi di dellu tey dañuy doxantu vaar wax na ko si télé yi wax ko ci rajo yi ne am naa ci onze personne am na ci ñaar ñu ñàkk fay ñu ñàkk fulla ñoo xamante ni wàcc seen jabar yeeg seen doom yi dem xuutar xuutari topp ràngu ma ni ko mamata ba mu ne naa ma ni ko wax ji c'est faux wax ji amul ma demam ma toog da ngeen a bëgg wax ji gën a leer wala wax ji c'est faux tey dañuy doxantu vaar preuve génn lan moo tax wax ji amul ba ma nee soirée privée la lépp privé ba waxaat ko numéro bi ngeen gis ci soirée bi mu affiché àddunaa ko am ñépp a ko am dama leen a bëgg xamal gaa yooyu nekk numéro boobu kenn mësu ko daj ci paket bi mu nekk numéro boobu musul dugg si téléphone Mame Matar yaa ngi dégg ki dend ak Mame Matar demal nga jox ko direct bi mu seetaan ko li ma koy wax tey jii musu ko dégg moom sax xalaatu ko te sànq laa ko mujjee seetaan <laughs> muy wax naan preuve onze personnes yi tey rek nga guddee <laughs> mbokk yéen a ngi dégg ma ni Mame Matar onze personnes yim ne leen moom la am amul dara c'est faux amul tous waala kalaa kasiida léegi nag taxawoon naa fi ne leen am na ñenn ñoo xamante ni diine gi dañ koy mbubboo diine gi la ñuy def seeni code pour jàll ñu mel ni maam Matar moo tax may wax encore une fois waxuma association Jamra parce que Jamra équipe la xëy na ña ca des meluñu noonu mais maam Matar Gueye menn ni mu mel laa leen di wax tey si li ma xam maam Matar nee na am na onze personnes tey li ma mujjee seetaan dem leen ngeen seetaanaat vidéo yi boo leen paree mooy que xaw ma numéro yi nan ak nan lañ def ba capté ko ma ni ko maam Matar waxuloo dëgg maam Matar waxuloo dëgg bu dee dangaa am ay preuve tey dañuy doxantu vaar génneel preuve yi maam Matar génneel preuve yi seetaan naa la bul fi taxaw ni kenn moo ma ñaan moo tax génneew ma wala borom kër gi moo ma ñaan moo tax génneew ma kenn ñaanu la man ndeyu mbill gi maa war a ñaan te ma tus dama ne maam Matar bu dee am nga preuve benn onze nga wax ma ne la onze yi daa bëri man benn laa la laajte sénégalais yi seetaat soxla nañu seeni diis heure boo dikkee di leen naxee ay kayit am nañu list lii liste lee man na kaasuma benn liste list bi may kaas mooy sama list man man rangu list bi ñu am ne am nañ onze numéro ay kilifa yu ñàkk fayda ji bàyyi nag coow bu amee wax ji bari nit ku nekk nit ga kii di wax gauche kii di wax droite man traité nañ ma noo bu nekk ci àdduna bi fu mu toll nii loolu yépp nag dama koy nangu waaye moom it day nangu nekk lim leen wax ay waxi naxaate la ma Matar day nangu nekk li mu leen wax ay waxi naxaate la wax ju foo la bu weddee na leen wan preuve fekk wanu leen preuve ni leen liste baa ngi nii tur baa ngi nii te moom nand naa ko léegi te mu génn ne leen non benn kilifa moo ma ñaan kenn ñaanu ko fii man maa am droit pour ñaane te ñaanuma personne dama ni ma Matar onze yi nga wax man benn bi laa ci soxla du ma sa génn na génn yaay yi yaay yaay yi jaawale yaay yi jaawale euh, nu mu tudd <laughs> yaay yi jaawale xew mi maam Matar <laughs> Sénégal dem leen ngeen déglu Ahmed xalifa Niass suñu papa jooju yal na yàlla yàggal taxawaayam ñooñu ay kilifa lañu ñooñu ba jàng xewee dañoo jàng waaw kay ñooñu diine gi donga leen ñor leneen ñoru leen suñu papa Iran wax na wax ju rafet suñu papa xalifa Niass wax na wax bu rafet waaw ñooñu nga xamante ni ñoom tamit ñoo jiite waa duñu ñoo ñoo lànk xaw ma duñu ko nangu ñoom tamit dégg naa kenn ci ñoom wax wax bu rafet dëkk bi dafa am yoon déglu leen paa yi ñoom lu ñu wax maam Matar moom lu mu wax nee na waaw rangu bi mu kiiwee ginnaaw bi mu defee lii nee na moom daal dajale na ay nit ba ñu mat 52 personnes yoo xamante ni ci ay mbootaay lañ pour xeex ak benn xale bu ndaw ci mag de déglu leen wax ji ci mag 52 personnes la dajale pour benn ràng bu ndaw a ndaw te nee nañ ci diine gi dañuy bañ xale bi yàq diine bi yàq seeni doom <laughs> waaru woo leen te seen doom yi chaque jour ñuy seetaan novelas ak ñoom di toog ak ñoom di seetaan novelas novelas li fay daw lan la ay film fóonante ñoo fa am nañ leen ko wax te dee nañ leen bàyyi naxante bi ak jayante bi tey waxante dëgg bi sama gars yi sama gars yi bàyyi leen di dégg tippiñ naan noonu la dee leen enquête ay naxu feuille ay am nañu am nañu onze numéro ma ne ko onze daa bari génneel benn te sénégalais yi soxla nañ seeni dix rangu benn la laajte preuve yi nag gars yi dama bëgg suba suba journaliste bu fi nekk wala waxkat bu fi nekk demal ku jege ma Matar sax na dem léegi ne ko na ko woon preuve yi preuve yi buñ ko tasul ba àdduna ñépp gis ko baalu ko te bu mu ne kenn ko ñaan man maa war a ñante te ñaanu ma ma waxaat firi moom mu ngi fi kenn ku ci nekk ci yéen maquillage leen sañse leen yéeg leen seen i talon góor ñi jël leen seen parfum chemise leen dem leen ba firi ne ko way way firi numéro bii maam Matane jàpp na ci onze personnes ci soirée rangu bi numéro bi mus naa dugg si téléphone am mus tee dugg tuwaal ba sax dañul damaa dof ba naan soirée privée di ci def ay ay ay ay numéro numéro yoo xam ne du doon numéro privé Mamata da nga juum da ngay nangu ne da nga juum. lii lee tax na ba Mame Mactar Gueye bu fekkoon ne woyam dafa rafet lool tey jii am na luñ ci sof loo xamante ne dina indi ay gàkk-gàkk ci bët bi nga ko doon xoolee ginnaaw kàddu tuuma ak yàq der yu rangu yooyu le am na ci beneen bu ñu njort ni mu ngi jógee ko ci kenn ci ay xameelam wala ci jegeñaaleem di ko jébaane ci journal l'Observateur ba di xamle rek ne Mame Mactar Gueye daf doon séddalee ay capote astafurlaay waaw ca mbir ma daanaka Mame Mactar Gueye dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ doon xeex jàngorob sida ci xeex mu am amoon ci ab taxawaay bu am solo ba jaraloon ko muy dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom ngir ñaax leen ci mbir mi ndax ñu moytandiku googulee jàngoro ca loolu sax moom Mame Mactar Guèye bu ñu sukkandiku ci yooyu le kàdd doon na wàcc di dem ci terrain bi di fa séddale ay préservatif waaye yooyu le tuuma nday mbi léegi noppiwu ci benn yoon na am sax bi ñu ko laajee lu jëm ci mbir mi dafa mel ni ku tiit ndax yooyu le kàddu daf ko jëlee kaw lam ca teg mooy moi distributeur de préservatif maanaam man ak seddale ay kondom Mame Mactar Guèye dafa weddi yooyu le tuuma tekki di dànkaafu ki nga xamante ne moom moo ko def bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom mu ngi wax ne bés bu ma xamee ki nga xamante ne moom moo def lu ni mel dina daj dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la rangu daj dinaa ko porte plainte yóbbu ko ca yoon ngir ngir sosal gum ma sosal yàq sama der ak di ma jéebaane ci réew mi ànd ak loolu Mame Mactar Guèye teg ci ne wax ji yëpp ay sos la te dinaa la yóbbu lépp ci yoon waaye mbokk yi tuuma yi ñu teg ci ndoddama yemul foofu wax nañu itam ne ma maxtar Gueye dafa bokk ci ab secte japonaise bu mag bu ñu woowee yi nekk ab fajkat féete fële ca Sacré-Cœur lu ci mën mënti ama moom mi ñu jàppee noonu bu njëkk ci animatrice Sen TV ba woon di rangu weddi na lépp li nga xamante ne ay tuumala yu ñu teg ci moom waaye lu jëm ci wàllu boole buñ ko boole ci boobu secte japonaise indi na ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom boobule association bu Mahikari association bu baax la te am njëriñ loolu ci wàllu dundin te itam dafay joxe ay xalaata ak di yedd doomu aadama yi ci naka la ñuy dundee ci suñu biir ànd ak loolu mu teg ci ne moom Mame Mactar Gueye bokkoon na ci ab campagne de reboisement bu ñu amaloon fële ca parc ànd ak ca Joal Fadiouth te ki amaloon campagne boobu mooy Mahakari muy xamle ne Mahakari daf ko yónnee woon ab invitation ngir mu bokk ci campagne de reboisement boobule moom it mu wuyu ci turu Jamra bi nga xamante ne ci la bokk ndax boobule organisation muy Jamra dund ak dund itam daf ko soxal la te loolu le bokk na ci ànd ak loolu Mame Makhtar Gueye di feddali waata àndam ci boobule kuréel di wax ne bokkoon na ci boobule activité waaye itam bu ko kuréel googulee woowaatee suba suba ci lu ni mel dana dem nekk ci seen wet jàppale leen ci seen liggéey lu ci mënti am Mame Mactar Gueye jamono ji mu ngi jànquwante ak ay xeetu tuuma yu bari jàmmaarloo gu muy jàmmaarloo ak lépp lu mu yaakaar ne lii luy yàq jikko yi réew mi la juróoloon na ko fi sax ba ñu ko fi ba ñu ko fi tëkku ngir rey ko maanaam menace de mort loolu lépp mu ngi jóge ko woon ci benn commentaire boo xamante ne moom Calista Sy defoon moom mi nga xamante ne moom moo nekkoon scénariste bu série maîtresse d'un homme marié bi commentaire boobu mu defoon ci benn publication boo xamante ne ni journaliste bi wuyoo ci turu Oumy Régina Samb moom moo ko defoon lii la bindoon ci boobu boobule commentaire bésam moom xam naa ni dina mës a ñëw ci lu yàggul nag yooyu lee kàddu moo taxoon ba Mame Mactar Gueye jàpp ni dañ koy menacer de ana fan la wànnent di mujjee ki gëtam ndax Mame Mactar Gueye dina mën a dëgg dëgg setal deram ci yile tuuma ndax ki wax yile tuuma itam dina feeñal boppam am déet lu ci mënti am daan ñëwaat ak yéen ci mbir mi dafa tooñ ma jotee ak fii la toogoon au mois de mars ànd fekk son patron j'ai la photo mais par respect moo tax ba tey génne ma ko ci réseaux sociaux yi fii la toog ànd ak Massamba Ndour de Marodi TV bi mu yégee ne porté nañ leen plainte en toute légitimité contre les dérives audiovisuelles de Maîtresse d'un homme marié et je ne reviens pas là-dessus le langage ordurier euh, l'apologie de la fornication et en même temps le la euh, comment dire euh, mu tuddati euh, le la pornographie verbal alors donc fii lañ ñëwoon ñu waxtaan waxtaan bu jekk ma encourager leen gërëm leen jox leen des exemples de de leurs prédécesseurs ay Cheikh Tidiane Diop bu daaree Kocc qui n'ont jamais de dérive alors donc boobu laa gëj a gisanteeg moom wala dégganteeg moom un an la presque parce que ma coow li mars la ñu ngi nii janvier waa loolu ma jékki-jékki rek ndax xam nga man ñi nga xam ne dama leen am ami dans Facebook c'est c'est ton cas c'est le cas de tout le monde boo bu booy défilé fil d'actualité bi seen i publication da nga koy gis kenn koo xam ne dafa ma defoon demande d'ami ma validé ko muy euh, la sympathique Oumy Régina Sambo di jarbaat ci man di xale bu yëw tey liggéey daanu liggéey Sud FM euh, mu def benn publication ma concernant c'est-à-dire semaine bi passée Sidi Diop le directeur de la rédaction bu quotidien national Le Soleil daf ma defal un portrait d'une page d'ailleurs c'était trop élogieux wax samay parcours les combats et tout euh, Oumy Regina jël ko nag reproduire ko sur sa page Facebook y a rien grave nit ñi di commenter ma jékki rek tombe ci commentaire am moom Khadija Sy borom maîtresse d'un homme marié mu wax fa lu yéeme parce que lire naa commentaire plus d'une centaine da nga dégg ma wax ci beneen commentaire moom moo fa wax lu kenn waxul dafa ne waaw bësam dana ñëw de te yàggatul sax waaw man danaa dégg loolu ba noppi parce que am na ñu naan Matar a ngi waxati mu ngi duggati ci plainte plainte danaa dégg loolu ba noppi naan non non c'est pas grave ak ñi naan ma euh, bàyyil mu jàll jëlaleel te mu wax lu leer sa bés a ngi ñëw te yàggatul am naa droit di jël loolu à la te Latif mas ñëw wan ma ay SMS ay menaces de la même nature au mois d' avril 2008 ñu teg si une semaine ñu rey ko dans un accident qui n'a toujours pas été élucidé ñu ne man naa bàyyi noonu fu ñu ko teg duma ko bàyyi noonu te dina leer elle va dire au procureur la muy wax ndax dafa doon kaf wala déet parce que j'ai écrit un post pour wane sama tolérance ak sama ouverture ma ne ah lii day maa ko lire ci sa ci publication Oumy Régina Samb bu nga def commentaire waaw kaf nga si jublu wala dëgg la elle n'a pas répondu waaye moom bindu ma ko de aw ma affaire ak moom depuis mars comme ni ma la ko waxee quand ils ont été condamnés euh, par le le CNRA elle n'a pas réagi Seneweb woo ko mu ne aw ma lu mu ci wax te moo ko wax il faut mu leeral ko man je vais ex je vais pas exposer ma sécurité pour faire plaisir à des gens qui ont des des susceptibilités naan mataaral quand tout le temps rek tu parles de plainte du ma toppatoo yooyu on ne joue pas avec la sécurité des gens ay ñaari autorités yoo xam ne jotoon naa wax ñoom sur les menaces que Latif euh, comment dirais-je dañ ko woyefal et on a vu après ce qui s'est passé accident bu bizarre kat la ñu woon ci oto bi Latif lañ ci coppati moom moo bakkanam dem ñi ci des ils n'ont pas reçu de gratinure may bàyyi loolu muy muy jàll pourquoi te l'accident mystérieux de Latif dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 avril 2008 n'a pas encore été élucidé et précédemment il avait reçu des menaces waaw man ma jot menace